kon loolu du mbiru léegi loolu yàgg na kon li may wax man xam naa ko bu baax kon Macky Sall bu dee côté Macky Sall bu dee sonal seen bopp àdduna bi yëpp buñ daje di ko xeex dañuy xeex ba sonn ndax man maa fàtt nopp dégg xaw ma ndax xam ngeen li may wax la ñu. Mm-hmm. Macky Sall ay noppam maa ko fàtt du dégg waxuma ko nag pour nit ñi ñëw ci internet bi li ma leen wax teey leen te déglu samay vidéo ba mu jeex. da di déglu ak xel ndax xam-xam laay waxee xam-xam boobu daf leen a suuf boobu yéen xamoo leen sax lu xew ci dëkk bi. Hmm. boobu Macky Sall sax xamoo leen soo ko sax xamoo leen ndax yi dafa yàgg. Hmm. comme ba 2012 amee bi ma ñëwee kër ga dama leen ne xale yi ñu naan ma ne kan ngeen wootee man leen jiw man leen ah da ngeen yàq seen carte de ndax réew mi yàlla Macky Sall la ñu ne ma noo ko xamee ma leen waa parce que maa ko wax ak yàlla te yàlla neen bi dama ko defal. Mhm. man nag Ablaye Wade laa bëgg ci sama biir xol. Mhm. moom laay wooteel. Mhm. mais Macky Sall mooy kañ. am naa ci droit wala aw ma ci hmm? dëgg moo ma neex dëgg laay wax dañuy dëgg li ma wax baax. kon loolu fëyte la boor. dama ne adduna bi yëpp buñ dajewoon ci benn cercle. xëy suba ba ngoon ngir Macky Sall di ko xeex. man maa fat nopp yi du dégg du gis heure bu ma bëggee mu dégg maay fàttal ñu nopp yi heure bu ma bëggee mu gis maay fàttal ñu gis-gis bi convergence laa toog FM élection yi coow li bari lool mu yi yële 2019 mhm. mhm. coow li bari lool mu a toq sa bët a saaj bariya gars yi naan danañ def nii danañ def nii danañ def ne mhm. te élection yi laa leen ne benn deuxième tour du am ñaar képp koo xamante ne nee nga da ngay génn di def marche. Mhm. pour programme deuxième tour boobu buy métti ngay amee mhm. te du ngeen gis sax ku taxaw ne day def problème marche mhm. du am. te nit ñi bu ñu xëyee suba dañuy liggéey. loolu maa ko waxoon. am na wala amul. kon li may wax lu leer la. xëy na nag réseaux sociaux bi dafa xew léegi ba boo waxee sa benn kàddu day teel a egg moment boobu moom xëy na affaire demewul woon noonu. ay TikTok moment boobu amul woon. kon loolu lu leer nañ la. bi ñu génnee ci biir élection yi Cheikh Fall Sow benn bu Convergence FM mooma nag li nga wax ni suñu borom def na ci léegi nag dama lay laaj Macky la ndax day posé troisième mandat waaw wala déet waxuma sax waaw dafa ma ne Macky Sall ndax dana posé troisième mandat ma ne teg ma ne ko Cheikh bu tax nga laaj ma loolu mu ne parce que da wax ci élection yi. Mm-hmm.